xamante ne war nañu fa euh, dem euh, bokk na ci ni kii di kooku ubbi ñoo la ñaax de dañ laa ñaax guddi na yaa naa <laughs> ay ca jumbari euh, ndeysaan fee ca kër ma Mbay Fall gis nañu ñaari xale ndeysaan ci oto lañ leen fekk ñu ñàkk seen bakken caanam bu doy waar jamono ji nag mu jur polémique kan moo leen dugal ci oto ba ka fa def kenn ki moom lañu ñu fekk mu ñàkk bakkanam euh, ci saa si mm-hmm. mais keneen ki it euh, sonnoon na ba ñu koy yóbbu l'hôpital ca kër docteur ngir ñu di ko sauver ak yooyu waaye ñi ngi ñuy xamal ni ñaari xale yi ñoom ñaan ñëpp dañu ñàkk seen bakkan ci anam bu doy waar boo xamante ni kenn xamul xale yi daal gis ñu na nañu di leen seet gisuñu leen mm-hmm. oto ba ña ngi ko muuroon baas ko nag du oto bu màgget ci buntu kër la gaare woon mu nekk loo xam tamit jur na polémique jamono ji foofu ju mbëri mel na ni gis nga affaire mhm. waa xam nga loolu moom euh, ñun nii ñëpp dañ ci euh, euh, dañ koy ñaawlu. lu mhm. dëgg mhm. cest à doo xam ni te leen fa dugal wala oto bi dafa ubbeeku woon ñu fexe ba dugg fa xamuloo. lu dëgg parce que foofu ñu nekk defa naa ak ñoom fi ñu dëkk benn la seen dëkkandoo la. du dëgg mais xam nga ci cadre bi ñuy waxee mooy. Euh, Ali. Mhm. dafa naa euh, loi Sénégal. Mhm. Euh, article bu 22 ba xam nga 20 ba 22. Mhm. dafa si loi bi li mu li mu lim lim ci def ci tënk ci xale dafa bari. mais tey dam lay wax benn affaire tey est-ce que loolu noonu ñu ngi koy jëfe walla jëfewuñ ko parce que démb gis nga nit. jël ay xale dajale leen ay liir trente huit kii quarante deux quarante liir di yor liir yi te liir rek lay yor fu liir yi di màggee munoo leen fexe ba gis ko du dëgg hmm. tey léegi ak ñu gisaat fi e, daara yoo xam ne xale yu ndaw yi dañ fay nekk ay nit di leen e, def naka su du noonu te kenn du ci mën dara xam tay tey way jur yi dafa am benn feebar bu dugg ci Sénégal boo yëgut aali xam nga mooy ban est-ce que xam nga way jur yu bari mënatuñu du mënatuñu nekk ak seen doom yi da ngay gis bu xale bi yuuxoo sax mu naan kii danga ko war a yóbbu ci diw nga fay nga bàyyi ko fa bu mu ñëwati ci kër gi vraiment kii dafa lëj la dafa lii dafa laa bëri na jigéen ñu xam ne mënatuñu nekk ak seen doom yi bëri na góor yoo xam ne tamit mënuñu nekk seen doom yi doom boo ko jëlee nga ni eh, dama koy yóbbu fii wala dama koy yóbbu fee nga dem mun ko faa bàyyi aali mhm. tay jii yaa ngi dégg mhm. te yow boo demaatee la nga woon nga newaat ci mais est-ce doom dina arrêté la doom la jëlee mënoo yor doom mhm. est-ce que mënoo bàyyi ràcc bi mais ngay yóbbu di fay ak di jël di sànni ci mbedd mi tey ràcc chaque jour naan naan bàyyi leen ñu dem fow yi xoola liy njëkk di defoo ma wax la benn affaire France man mosuma fa dem de mais tey boo fa demoon tey xale bëgg a jënd cigarette cigarette il faut mu ut mag pour mu jàppale ko pour jëndal ko cigarette te réew ma du réewum jullit parce que am na âge boo xam ne boo duggee ci biti kenn du la jaay booy ma wax la benn affaire sa kër ngay nekk yow sa kër xoola sa xarit mooy ñëw yónni sa doom bu toll nii bitig ba yónni bi muy dem rek xale bi tey mooy loolu ak nga jël sa doom may ko xaalis ne ko oh demal jëndi est-ce que xam nga xale boo koy jox xaalis yow pàppa ji dangaa war a jàpp ci loxoom ànd ak moom bitig ba mooy yoon de mm-hmm. suñ papa yi de noonu lañ daan def dañuy jàpp sa loxo jox la xaalis bi ànd ak yow bitig ba léegi ban parent ngay gis mu jël loxo xale bi ànd ak moom bitig ba wax ma ko amul xale bu tuuti guddi da nga koy gis muy dem bitig ba ak di jaabante di dem di ñëw am na wala amut. ba pare mboñ mbonte yi nga xam ne léeg-léeg xale yi dañ koy def naan diw dey diw dey romb naa doom ji léegi day tux day lii day laa tux ma wax la dara est ce que xam nga doo ko jàngal sa doom man maay ñëw sa kër ngay woo sa doom bu am ñetti at naan ko jëndalal sa papa cigarette yow ci bitig bi ak almet waxal kenn mooy yàq xale bi ah, non sa xarit mooy ñëw. ne la booy amoo ko mën a jënd cigarette nga woo xale bi ne ko demal dem jëndal sa papa cigarette. waaw ça ne se fait pas. yónni bi ngeen koy yónni muy dem di ñëw. Mm-hmm. xoola xale yi ni ñu leen tabaxee tabax ni ñuy ni ñuy tabaxee xale yi. Mm-hmm. moo des aal yi. xale xale xanoo xale mun naa dugg fenn léegi ba dee fa mag du ko yëg te xale dañ ko daan yar yarin boo xam ne buy génn sax il mu ne yaayam damay dem fii. soo ko mayee xaalis bala mu ko jaay il faut mu wan ko yaayam léegi dama lay wax benn affaire xale yooyu dugg ci euh, euh, euh, oto bi ba ba dee fa man xam nga lan laa bëggoon pour topp kaa bi gën a mag ndax seen yaay yi ñu ngi ci kër ga wala déet parce que souvent jigéen di sëy ci kër dem bàyyi fa doomam noonu lay demee. te ñii ay xale lañu. gis naa ko xam ne Medina xaw ma fan. yaayam sëyatu fa dafa dem di sëy bi xale bi xam nan la def dafa yéeg si kaw étage bi. ci étage bi la jóge daanu yax yi mokk fa la jaar te xoolam ma wax la dara est-ce que xam nga jigéen bu jóge ci kër yomb naa xam est-ce que xam nga doomam est-ce que xam nga lu ci ëpp ñu nga xam ne seen yaay sëyatul ci kër dem mm-hmm. est-ce que xam nga xam nga lan moo tax ñuy xaw a dof xam nga ko mm. xam nga ko xoola bu une jotee une bu jotee bala ngaa xam ni yaay baax na ci doom bu une jotee ba nga ba xale bi jàngi ba wàcc du am néeg bu mu nelawee léegi-léeg xale bi du nelaw parce que néeg yi fan lay nelawee fan te léegi-léeg xale diggante midi ak une day soxla pour dallu léegi da ngay gis xale bi ci biir kër gi comme yaayam nekku fi day wandaalu rek du am fu mu dalloo léegi nag kaa yi nga indi nii man xam nga lan moo ma ci dese ndax seen yaay yi ña nga woon ca kër ga wala ñu xam ni a a fa parce que dem naa benn dëkk xale bi yaayam dafa doon sëy sëyetu fa xam nga xale bi fan la dugg ci baaj xam nga baaj mooy mbalka ndox yooyu xoola fa la dugg ñu koy wër ci garage yeeg yëpp man ci kër googu laa fanaan bi ñu xëyee la benn mason di tànk ndox fekk ko mu dee ba tëmb ndekete bi muy tànk dafa dem daanu ci biir mbalka bi oh. falaa fanaan ci kër gi ndekete xale bi liñ koy wër fépp mi ngi ci mbalka bi benn mason moo doon tànk ndox rek yuuxu ndekete dee na naan ndox mi ba tëmb booy fii ma wax la dara muy médecin woo af xoola bërki dem man sama doom moo doon crise ci guddi gi sama doom bu ndaw bi si ma jël ko yóbbu ko hôpital ci Kàmbaaw docteur bi ma fekk ko mu sàngu di nelaw ma yee ko mu lànk naan ma yóbbu ko Kamba xool xale bi sax defu ko xale baa ngi crise samay loxo loolu docteur la wala dolli toor hôpital Sicap Mbao laa wax de ak ni muy ngande yooyu yëpp ngandeewuñ ko ci ngandeewuñ ko ci yërmande xoola hôpital bu tuuti xam nga xoolal hôpital dina tuuti nekk nekk hôpital bu nganda est xam nga loolu mm-hmm. parce que boo fa tegee boroom yërmande rek hôpital bi hôpital bu yaatu la fépp nit di nekk di fa xittili ay nit yal na nekk boroom xol bu yaa xoola darajey rasulullaay nii laa téye booy bi muy kiri samay loxo dafa doon crise samay loxo man maa gëm yàlla yaayam jël benn ndox raay ko ko mu bàyyi crise bi barki salaatul faati docteur fi sàngu sàng jógu fa c'est dama naroon wël xool nga dama dem di kii sama moto seen bi laa ñoddi woon sax pour dem rek bàcc ko ko ma xam ma ne garaawul suñu xëyee duñu xam nu mu demee billaahi wal kitaab bi fa mu tëdd ngóone jógul sax xool xale bi naan ñu amuma lan primaire xaw ma nu ñuy wax noonu naan hôpitalu xale yooyu yow hôpital dafa am xale ak mag docteur nga jógal nga yér ko est-ce xam nga comprimer yu bëri comprimé bopp yu metti xoolal est-ce xam nga léeg-léeg sa bopp di metti ñu digal la benn comprimé ne la naan ko dangaa defa ni moo faj sa bopp bi yaakaar gi nga yaakaar ni dalay faj moo la faj mais du comprimer bi parce que booy seetlu dañuy nettali histoire yonent yàlla Moussa rek mus na feebar romb benn ñax ñax bi na ko musaa danga nga feebar naan ma nga wér. mu mu mu ne ko non yàlla laay waxal mu dem ci yàlla yàlla digal ko ñax gi ko doon woo. musaa dem naan ko feebar bi yokk mu demaat ci yàlla ne ko ah man kat dama feebar bëggoon ku ma faj yàlla ne ko yàlla ne ko ndax docteur am na ci dëkk bi mu ne ko waaw mu ne ko demal ci docteur mu dem ci docteur docteur digal ko ñax gi mu ñëw naan ñax gi wér. booy sa ngandi hôpital yëpp amee woo ko garab amee woo ko ay nit yu mën a faj amee woo ko ay nit yu am yërmande sénégalais li muy mën a jur yëpp du garde xale yi xoola ñaata xoola tey jii tey li adduna bi soxla ñun moom lañ amoon perte ko ba pare yëgaluñ ko sax suñu yaram xam nga mooy lan ay xale géej gi ñaata la lekk jën yi ñu waroon dundee ñun jën yi wëlbatiku di dundee suñu xale yi tey kenn talul ñooñu ñaata kii la jën ñi lekk géej gi ñaata jën jën ñaata seen papa fi mu doon jëlee jën di ko lekk ñoog seen yaay di fa am ak xaar ba jur leen fa foofu lañ leen delloo ñoo ñu lekk leen jën yi ndax lan organisation bu bon bu nekk ci dëkk organiser wu leen ay nit nekk fi bëgg doon bëgg doon di doon doon lu yaa ngi dégg di xañ ay nit yaa ngi dégg koo fal dara lam fal nekku ci bu Ndella Madior ma dina ubbi hôpital bi xoola tey ma wax la dara am hôpitalu boppam xam nga kooku mi ngi doon coup d'état gouvernement di rawleel boppam waxal ba pare jigéen du déclarer xale yooyu kenn amu ci kayit du ñu personne ci dëkk bi loolu noonu ndax buñ na nee ñaari xale raam na ba pare euh, hôpital Tivaouane fukki liir ak benn ñoo dee ñu jël ministre Abdoulaye Diop saar wàcce ko xam nga wàccee Abdoulaye Diop saar lan lay symboliser xam nga lan la doon symboliser pour wane ni fii liir dootu fi am problème kon buñ nee la xale dugg na ci euh, dugg na ci oto dee fa Ali c'est normal c'est normal Ali. nekk na lu métti. waxal rek ah, li ngeen déréglé moo bari fii yaa ngi dégg. fii li fi déréglé dafa bari ak op ak xoola ak école yoo xam ne dañoo xëy rek ubbi ko ci mbedd. ubbi ubbi mbedd yi xoola léegi foo foo jot école ubbi nañ ko fa parce que école yi ñuy ubbi xam nga lan moo ko waral njàng mi léegi benn élève bu nekk cinquante mille ngay fay nga jur ñaata doom bëgg leen fayal boo gisee benn benn asu bara bu ubbi benn école ne la sept mille francs doo fa yóbbu xale yi da ngay sànni xale yi rek yow. wax dëgg yàlla. loolu am na solo waxal. Euh, ñii nañ ñu jàppale ngir yàlla war a suul imagineel fayu école bi ni mu seeree aali. léegi boo amee ku ubbi ne la 7000 mais da ngay daw dem fa waxal rek. doy na waar léegi affaire yi niñ ko saamee xoola tegale bu guddee te daanul ba jiitoo jub. loolu booy ni ngeen di ni ñuy defee suñu affaire yi moom moo normalul yaa ngi dégg ba pare kenn ku si nekk danaan sama yoon newu ci mais xoola xaara sa wàll. loo ni sama yoon newu si xaaral sa wàll dina ñëw. Ah, oui sa wàll day ñëw oh, euh, ah. Ngoné doon na lu métti lu doy waar ay xale yu ñu tëj ci oto xaw ma ñoom ñoo fa tëj seen bopp ak yooyu ñu di leen di seet gisuñu leen euh, ñu jaare fa ñàkk seen bakken kenn ki moom ci saa si la ñu ko fekk mu ñàkk bakkenam yaay keneen ki sonnoon na lool laataa muy moom itamit di dem dugub ji euh, ba nga gisee mbir yi. jàngat bi nga xamante ne am nga ko ci ci metti gi nga xamante ne ko def metti bi moom wax ma la dara mais keroog bi ma ko seetaanee seetaan naa ci ay quelques extraits ci TikTok bi hmm. mais man si boppam guddi googu yëpp pour ma nelaw sax gëmmu bët dafa nekk loo xam ne lu ma jafe la parce que damaa xam ne ne ay xale yu ndaw dañoo dund lu metti balaa ñoo dee parce que euh, kenn ki sax dégg naa moo ñàkk bakkanam ñu génnee bët yi keneen ki moom la ñu rawale hmm. yóbbu ko li nga xam ne moom mooy hôpital mais li ma jaaxal ba pare ñaari nit ñoo àndoon doon ko wëri bi ñu koy wëree oto bi dafa tëju ñu dégg nee na ci man ci jàngat ji ma def kenn ki dégg jooyu jooyu jooyu xale ñu ne nañu ubbi oto bi mais est-ce que xale yi mën nañu fekk ci oto boo xam ne tey ji oto bi ñu duggal fa seen bopp ba tëj oto bi ba oto bi ñu mën mujj ko bâché est-ce que xale mën nañ mën nañ mën nañ def loolu duggal seeni oto ci bâche même bu doon tamit ñàkk bakkanam kese la mu nekk mort naturel mën nga xalaat ne xale yi dañ leen fa dugal mais xale bi est-ce que nga dugg ba tëj ba pare mën ngaa wàccee bâche loolu mënut a nekk. waaw man damay laaj xale yi dañu fekkoon porte oto bi tëjuwul ak caabi ñu ubbi ko dugg di foo waa ji jàpp ni. tëj ñoom waaw ñëw bâche leen. ñëw ñëw bâche leen ñëw ñëw bâche leen mais bu ñu leen bâchee xam nga dañoo ne ci kenn xale am na ci koo xam ne tamit dafa ñàkk ay ay dañ cee dindi ay cëram mais kon lan moo dindi loolu seen cër yi leen dindi lan moo dindi loolu. laa bëgg a xam. man man d'après bi ma seetaan li ma seetaan ci TikTok bii li ma dégg ñu ne oto bi oto bi ñu ko fekk benn sëriñ moo ko moom. ci li ma seetaan ci vidéo yi ma dégg ci TikTok ñu ne benn sëriñ moom moom oto bi sëriñ boo xam ne ci koñ bi la dëkk ci li ma wax man côté boobu dama koy delloowaat ci sëriñ yi nga xam ne dañuy def ay sacrifice waxuma ne ñoom dañu ko dañu leen def sacrifice mais dafa am xale yooyu ngay gis ñaata xale yoo xam ne ñoo fiy réer kenn du leen gis wala ñaata xale yoo xam ne ñoo fii réer ñuy dagg seeni i cër ba après loolu du mujj fenn ñu ci def ay enquête duñ ci taxaw ne xale yooyu lan mooy yóbbu seeni i cër doo mës a déggaat ñu revenir la ci dara ne lii jàpp nañ ko wala dara doo ci mës a déggaat dara niiroo ngay xool ay xale yi ndaw di nul ci zéro parce que xale bu buñ nee waajur yi waajur bu nekk tey mu ngi góorgóorlu bëggoo sàggane sa doom ci muy dem mm-hmm. ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a am na ñoo xam ne tey jii seen doom fu ñu nekk dañ fay nekk mais am na yaay yoo xam ne bu ñu lekkee ba tëdd ne xàng lijjantiw ñu sax seeni doom fu ñu nekk imaginel ñi ay xale yu tuuti lañu xale yu ndaw lañ ñu dem ba dagg seeni cër ak liñ leen dal waxuma la dara de mais tey jii kenn ki nga xam ne moo fa tëdd di dund lu metti ci xale di jooy di lekkuloo naanuloo te bul xam ñaata temps lañ fa def mm-hmm. keneen ki tamit ba dund lu metti ba ñu dind ay cëram yóbbu ko dafa nekk loo xam ne dafa doy waar waajur yi ñoo war a veiller ci xale yi veiller seeni doom bu baax sa xale buy jàngi yóbbu ko ba ci école ba su wàccee nga dem ba foofu nga jëlewaat sa doom teg ko sa doom fu muy dugg ak fu muy génn du benn jamono bi amoon bu njëkk ba ak léegi daawu gis ay ay xale yu ñuy sàcc daam daan nga dégg xale bu réer na xale bu daan réer da nga daan dégg xale mën naa jóge Grand Dakar feeñee caa rey dañ daan ndox di dem seen yoon mais ay ray ak yooyu yëpp doo ko dégg kon dafa jot ci loo xam ne waajur yi nañuy veillé ci xale yi nañuy veillé ci seeni doom bu baax a baax fépp fu ñuy dem wala fu ñuy teg seen tànk na xale tamit par instant yi mën na na bëreet yaay bu xëy di liggéey bàyyi di xëy di liggéey nga bàyyi koog ñoo xam ne ne tamit xëy na duñ ci veillé pour pour jàppale la sa doom mm-hmm. mais lii ñuy def nii metti na ndax boo xoolee sacrifice yu bari yii moom la ñuy rey xale yi di yóbbu seen i cër cër yi la moo tax ñu jël ko xam nga parents yi mën ne xale bi rey nañ ko wala dara mais xale yi cër yi ñuy jël ci xale yi di ko yóbbu ndax lan topp si yenn sëriñ si ak yenn sacrifice yi nga xam ne moom la ñuy def di ko def ci ay doomu jàmbur ñu bëri alal lañ koy utee di jël ay di jël ay cëru xale lu mel ne ay bët seeni i lu mel ne loxo wala tànk wa seen i sax dañ leen di dagg wala parfois di ko lelli di ko jox ay sëriñ te loolu yëpp ay ay ay ay ay mbir moo koy yóbbu kon nañuy xool di xoolaat tamit genre sëriñ yi nga xam ne ñooy nekk ci yenn secteurs yi dégg yenn sëriñ yi nekk ci secteur te la plupart ñu koy def ñëpp sëriñ yooyu du ñu ay sénégalais sëriñ yi koy def lu ci bëri du ñu ay sénégalais ñuy ñëw di def loolu di làqatu di jagg yenn cëri ci xale yi xale yi daal ñuy dund metti na trop trop trop trop man su ma ci nekk di wax sax vraiment sama yaram dafay hmm. dafay daw nag bu baax a baax ndax liñ leen def dafa metti trop